alhamdulillahi rabbil alamin summa salaatu ma salaam ala ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala wa ashaabihi wa yi ci yàlla alhamdulillah ñu ngi remercier waa Sénégal gépp julli ñi fuñ ñu mënta nekk ci li nga xamante ni mooy lu xew li nii ci Idrissa Seck wax ci diine loo xamante ni laal na l'islam du ma ne Kaaba geeg Màkka rek la laal waaye laal na l'islam bi yëpp la laal laal na julit ñëpp ba laal na yenent yëpp bàyyiwul kenn lépp luy pilier lislaam rek laal na ko lislaam bi diine bi ci boppam la laal waaye duma ci dellu ndax euh, boroom xam-xam yi wax nañ ci ay may wax nañ ci yal yàlla fay leen Sénégal bépp wax na ci macha allah point bu may dellu rek mooy mbokk yi ni ñëpp jógee tey taxaw ba wax macha allah ñépp mu metti leen waaw ba ku nekk loo ci man def nga ko ci ma ne bu mu yem ci Idrissa Seck rek te bu mu yem tey ci mbir mi rek képp ku fi jógati suba wax lenn ci lislaam wax lenn ci yàlla wax lenn ci yoon sallam fekk du noonu na ñëpp dajaloowaat ndax mbooloo moom mooy macha allah mbooloo bi la yàlla soxla mooy mbooloo boo xam ne dëgg moom moo leen ñor na ñëpp taxaw télé yi comme tey ni ñu jógee boroom xam-xam yi aima yi macha allah waaw fépp fu nit mënta nekk te gëm nga ni laa ilaha illallah muhammadun rasulullah moom moo nekk ci kaw lépp nga daal di jóg taxaw mettit ko am na tey gis nañ fi ñoo xam ne saaga nañ yàlla gis nañ fi ñoo xamante ne tey woote woon nañ ne ñoom ay yàlla lañ gis nañ fi ñoo xamante ne tey jël nañ ay nit teg leen ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam bal am na sax ñu fi dem ba ne diw yàlla la te ñooñu tey ñu ngi nii di dund waaye dégguñu wax ji coow li leer mbokk yi nañu jóg keneen ku fi jóg taxaw wax loo xamante ne naka sudul noonu la ci alquran na julit ñi foo mën a nekk rek bu dee jullit lañ dëgg rek nañ ko metti lu te mu feeñ ci ñun ñi war a wax ñëpp wax incha allah taala donc daal message mooy lancé rek mooy na jullit ñi fagarwaat incha allah taala lii la leçon la pour suba waaw am na comme ni ma ko waxee ñoo xamante ni weddi nañ ay yàlla yi jël fi yeneen mbir teg ko ci kaw ay yàlla yi jullit na ñëpp jóg taxaw képp ku fi waxati ni diw yàlla la wala diw moom mooy borom kun fayakun wala boog diw bu bëggee subhanallah day dem arash yàllaa ko woo arash mu ngi arash wala boog diw moom moo gën yonent bi saa sallam waaw diw yàlla la mbir yooyu mbokk yi na fu julit nekk rek na julit ñi tey jógaat raw nañu jógee tey ci mbirum Idrissa Seck waaye nañu jóg ndax l'islam moo ñu ñor ñun yàlla moo ñu ñor moo ñu yor moo ñu ñor incha allah taala ndax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah bu dëggoo ci ñun rek mbokk yi ci mbir yi dootuñu ci maslaha incha allah donc message baa ngoog jullit ñëpp nañu teewlu incha allah taala Sénégal bi yëpp yal na yàlla sàmm ñu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.